jot suñu ay vidéo da ngeen di abonné fii ci seen chaîne Production ngeen bës cloche bi bokk bi national international Vous êtes établi au Sénégal ou à l'étranger et vous voulez une gérance efficace et transparente de vos biens immobiliers villas, appartements, maisons, bureaux, commerces, immeubles et vous voulez faire louer à des conditions de transparence, d'hygiène et de sécurité N'attendez plus. Contactez vite l'agence Techno Habitat, votre agence de gérance immobilière qui vous propose des services de gestion locative rapide, rigoureuse et transparente. L'agence Techno Habitat vous assure en même temps une totale sérénité, où que vous soyez. L'agence Techno Habitat se trouve à la cité Mermoz, face ancienne piste, villa numéro Contact 73 73 agence techno habitat la clé du bien-être. mbokki internet yi Tawfekh production ñi ngi leen di ziarewaat bu baax a baax de nuyu di wax xam naa ne na mooy ngeen ñu ndax ay bés be weesu te waatuñ fii ngir jukki leen leen ci ay eh, xibaar soxal eh, ayu bés bi. Euh, tax ñu ngi euh, wax euh, di sant suñu borom bi ñu may kattan ñu teewaat fii waaye di ziare sangu yu tedd ci réew mi yëpp yaa neen yàlla may wér ñoom xalif généraux yëpp di ci jiite sëriñ Mountakha Mbacké Bassirou di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan Sénégal jàmm yàlla fi jàmm yàgg lool di leen fàttali tamit ne bu leen di fàtte di bës seen cloche boobu lay ngir mu gidde leen wan leen yoon bi ngeen di jaar ngir mën a am information yi nga xamante ni leen yitteel moo xam fii ci biir réew moo xam ci biti ci diaspora moo xam événement yu ngeen am aussi am na suñu numéro affiché ci suuf mën ngeen cee contacter dañ leen ko jàllale en intégralité ci YouTube Tawfekh Production dañ leen ko toppal xeexo yi lépp li nga xamante ni rek bëgg ngeen mu am euh, xibaar am information euh, vous pouvez quand même abonner ngeen euh, appuyer ci la touche cloche boobule ngir mën a jot suñu ay notification en temps réel ci anam bu mucc ayib niñ yéenekaay bés bi la ñuy ñëwaat bokk na ci euh, ku nekk xam ne ne euh, ayu bés bi la ci gën a fës euh, jëm na ci grève bi nga xamante ne transporteurs yi def nañ ko jëmale ko ci seq ko ak gouvernement bi mu nekk le grand cadre unitaire bi nga xamante ni moo njaboote euh, mboolem ñii di transporteurs yi nekk fi nga xamante moom moo di ci xew bu Sénégal ba ñu war def benn grand unité ngir nag euh, grande unité ngir également def li nga xamante moom moo di euh, seen mouvement d'humeur bi ñu gis ces conséquences qui sont énormes ci njeexantalam ci wàllum koom-koom bi ci njeexantalam ci wàllum secteur yëpp ndax ku nekk xam ne transport ci réew dafa am solo ku nekk xam ne tey jii mu takk mënatuñoo dem euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo di euh, jaaykat yi mënatuñoo dem seen bërëbu jaayukaay euh, mu nekk lu toll ci ay milliards ñi nga wax naan juróom fukki milliards sax démb rek mën nañ ne naaw na nga boole ko ñaari fan ba ñetti fan. dañuy jàpp ne kon xaalis bu bëri eh, état bu Sénégal ñàkk na ko ci mouvement d'humeur bi c' est vrai que l' état perd de l' autre côté aussi les transporteurs perdent mais euh, la euh, li nga xamante mooy tranche digg bi mooy que aussi euh, ñu xam ne ñi nga xam si ñoom ñoo di transporteurs yi seen droit la ñu nekk ci kaas parce que la constitution sénégalaise moo ni tëddee moo jox droit sénégalais bu ci nekk nga def kuréel association moo nangu ku nekk gëm la nga gëm ku nekk def mbootaay syndicat syndicat son rôle également c'est de def refondre les entrées moroses et matériaux yi nga xamante ni moom moo nekk ci liggéeykat yi mu diriger waaye est-ce que réellement d'abord ñi nga xamante ni moo tax damay ŋaññi transporteurs yi ŋaññi état bi doog a wax li nga xamante moom lañ moom la ñu war a def pour quand même am benn euh, entendement donte également entendement donte également gis nañ ne mot d'ordre bi levé nañ ko am nañ accord mais d'abord ci transporteurs yi ñoom dafa am lu ñu warloo ak askan bu Sénégal dafa am loo xamante ni dañ ko war a jox muy offrir benn service de qualité ku nekk xam na ne oto yi daw ci télé bi Sénégal euh, na jekk ku wax te yàlla rek tax oto yi màggat nañu oto yi tilim nañu salté nañu oto yi amul benn conformité boo xamante ni nga dugg ci oto moo tax ma naan boo demee ci Europe da ngay xeeb suñu transport au Sénégal foofu nga wàcc aéroport yi rek niñ lay teertoo niñ lay dalalee ak mucc ay gi nga gis daamar gi bindoo ko dafa warool ak suñuy daamar fii loolu aussi mu nekk loo xam ne leen cee bàyyi ak seen sago da gis oto boo xamante ni am na nombre bu mu war a yem muy yokk ci ay nga dem ci mécanicien yi ci te ci tool yi ñu yokkal la yeneen place te loolu également si insécurité lay participer parce que yaa ngi def surnombre euh, beneen bi mooy du point de vue euh, personnel ci ñi fay liggéey ci personne ressource yi euh, dañuy gis ne aussi dañu respecter le droit des travailleurs souvent da nga ci gis chauffeur bi liggéey ay at amul embauchement amul salaire bu baax nga gis ci receveur bu ci nekk même chose apprendre c'est-à-dire que conditions yi ñu liggéey elles sont tellement précaires ba nga xamante ni ñoom liñ ci war a gisee seen bopp duñ ko ci gis on a tout le temps entendu seen cri de cœur ñu warloo ak ak ay liggéeykat yi ak sénégalais yi mu nekkoon ñaari fan war nañu sàmmoonteeg àqu ñi nga xamante ñoom la ñuy liggéey ñoo leen di liggéeyal di travailleurs yi waaye war nañoo sàmmoonteeg àqu ñi nga xamante ñoom ñoo di sénégalais yi euh, la population sénégalaise le pëpp sénégalais bi nga xam ne war na am une euh, qualité de service ci wàllum li nga xam ne moom moo di offre de de qualité ci wàllum nag transport bi euh, ci mobilité transport bi loolu dañ buñ ko matalee ba pare nag ñu mën na ah am nañ droit casse leneen mais am nañ droit aussi casse parce que nee naa charte réew mi moo leen ko may parce que état bu Sénégal aussi dafa seetaan lu bëri li tax loolu mooy tey jii mm, an lan mooy ndeyu euh, ñi nga xam te ñu di chauffeur yi souvent ci tra trace trajet yi ñuy jaar dañuy gis jafe-jafe yi nga xam dañ koy am euh, moo xam ci wàllum tracasserie routière bi ñuy wax wàllum guerre bi wàllum jafe-jafe mais la corruption elle au sommet de l' état elle est en ñii di nguur gi bu fekkente da nga nekk ci nguur goo xamante ni euh, euh, tu n'as jamais vu ñu jàpp benn député wala benn ministre wala dara te ñu gis ni également la plupart de ces personnalités euh, son impliquées ci ay jëf ay scandale ay jëfi lu amul benn suite kon ñooñu ñu ngi corrompre kon euh, agent bi nekk ci kaw tali bi di cro def corruption ci benn 3002 bi francs pour man dañoo bàyyi sàcc milliard ba sàcc bu mag ba topp sàcckatu ginaar bi donc pour man loolu dafa nekk loo xamante ni état daf ko war a régler d'abord mais si sommet bi lañ koy régler c'est-à-dire que il faut que ñu am une Euh, li nga xam xamante moo di gestion euh, vertueuse ak transparente bi nga xamante ni euh, c'est c'est un slogan du chef de l'État mais mësuñu mësuñu ko mettre en pratique wala en œuvre pour man état war na fexe ba aussi Sénégal yi am yellu wàllum transport bu jàkk maître Moussa Diop l'histoire lui a donné raison waxoon na fi ne waruñu dépasser cent mille bus ci Dakar Dem Dikk boobaak léegi Dakar Dem Dikk amul lenn loo xamante mi ngi koy offrir ci Sénégalais mu neex leen kon mu ma ne secteur informel bi ak secteur privé bi dañ leen a bàyyee transport bi ñu ciy def yaa ma neex mbir mi jaxasoo on l'a pas organisé Sénégal ngi gis mu am une gare euh, bu mag euh, boo maraîchère bu mag boo xam ne c'est des milliards ñu ci injecté boo fa demee tey dafa fekk ñetti oto yu taxaw parce que de la clandestinité dans yebe fu la neex nga jaare yooru next on a du à distinguer lan mooy suñ dafa mel ne sax dama naan amaguñu système de transport boo xamante ni il est digne de son nom et puis il est de qualité boo xamante ni Sénégalais mën nañ ko apprécier loolu le rôle de qui c' est l' état qui doit arbitrer notamment les ministres yi nga xamante ni ils sont directement concernés d' ailleurs foofu laay ñëwee mooy li tax le mouvement d'humeur dure et puis depuis un mois plus d' un mois ñu def préavis aviser état bi pour que euh, ñu mën a àddu ci jafe yi seen onze points fukki ponk moom la ñu tëral tracas routière beeg régularisation nangam sangam mais loolu état bi di ko tànqamlu ça veut ça veut kon soit ñoom euh, dafa am ñàkk fulla guñ ko jox parce que ministre Mansour Faye mënul aussi n'est pas le seul concerné d'ailleurs c'est la tutelle d'accord mais aussi euh, dégg nañ les responsables syndicaux lu ñu wax mooy am na ay ministres concernés yoo xam ne dañoo war a toog autour d'une table mais pourquoi ces ministres refusent d'être autour d'une table est-ce que Sénégal mën nañoo liggéey fii nii ministres ñi ngi liggéey liggéey boo xamante moo ëpp njëriñ décanter cette situation qui a bloqué l'économie de ce pays non je dirais mais malheureusement nous sommes dans un pays la politique prime surtout on a du mal à régler les souffrances des Sénégalais à chaque fois H24 ngi ci campagne électorale indéterminée permanente boo xamante ni ça ne donne rien apporte rien aux Sénégalais ministère yi nga xam ne ñoo ci concerne lu tax ñu bëgg Mansour Faye waxale dégg nañ la version de Gora Khouma et d' responsables mooy que njëkk nañ ko def trois janvier la ñu xaatimoon Mansour Faye xaatim ko ci au non de ses ministres concernés les six ministères mais ba ñu demee si sur le terrain de liggéey euh, amul benn voilà bu mu ci am euh, benn benn benn gëdd bu am këyit googu document kon ñoom lu tax ñu lànk ne duñ dem toog autour d'une table parce que waxtaan moom quel que soit alpha les première les toutes les guerres que vous vivez dans ce monde ah sont terminées autour d'une table finissent par se régler autour d'une kon waxtaan ci la lépp xaj état na fexe ba askan bi nga xamante ni dañoo yelloo parce que sénégalais bi moom mooy moom mooy fay ñu defaral ko tali moo moo ci ay impôt ci xaalisam la ñuy defaree tali ci la ñuy defaree hôpital te munu caa jot ci la ñuy defaree tali te mënu cee jaar ci la ñuy euh, defaree daanaka jumtuwaay yu bëri te munuñ koo jëfandikoo mais ñun kon ban Sénégal la ñu nekk quand tout est devenu privatisé quand tout est devenu également euh, euh, urgente Euh, li nga xamante moom moo di urgent nga xamante état da ko war a def toog di ko seetaan état talul lan état mi ngi ci politique état mi ngi jël ay direction ay ministères yoo xamante ni lépp dañ ko politiser te am na ci ay département ministères yoo xam dañ ko war a dépolitiser am na ci ay direction yoo xam dañ ko war a dépolitiser mais malheureusement à l'heure où actuelle où je vous parle toutes les directions tey jii boo fa demee doo fa fekk boos ba mi ngi ci àll bi parce que yàlla l'arrivée du premier ministre bi nga xam dina tax ñoom ñu yàkkamte pour que ñu reconduire les idem pour les ministres Sénégal nañu toog ñu lijjanti réew mi lii c'est honte que des charrettes am en ville di circule ci tali bi au vingt-et-unième siècle soixante ans après l'indépendance on a du mal à régler euh, le système de transport sénégalais ça c'est honteux et c'est déplorable et ça ne donne pas alors de la communauté internationale que le Sénégal de passer vraiment moment yi et c'est déplorable il est temps que l'État qui est le garant de notre sécurité qui gère notre stabilité notre bien-être quand même s'engage et se mettre au travail pour quand même le bien-être des Sénégalais loolu dafa jot si le temps de la politique doit terminer